waaw affaire bi daal sànq ci ay deux yooyu. la benn waaye doon dawal kalando. jékki-jékki nag am na am na lu mu yaboon nag quoi. au fait dafa mujjee kii gaare. woo sapeur ne jaan moo nekk ci oto bi quoi. te boo xoolee ba xool jaan moo nekkoon ci oto bi. yàgg nañ fi lool nag pour bëgg a génnee jaan bi mais à la dem na ci sutura. génnee nañ jaan bi quoi. donte sax rëyul yenn yi mais jaan moom fu mu nekk moom. génnee ko daal moo ci am solo quoi. Euh, sapeur yi ñëwoon jàpp ci bagage yi yëpp. ñu leen di sant waa Walfadjri. mais jaan bi damaa tëdd sama gaal la quoi gars yi woo ma sama onze bi jaan bi sama maa ko léegi quoi mu ngi fee waaw sama booy yëpp woo naa leen nice booy ñëw nañ si ma jàpp nañ ci mais oto bi nag si ma ñoom yàqu na quoi mais garaawat mais li xéwal la ah ay carnage yeeg yooyu waaw lépp yàqu na mais li xéwal la quoi lu waroon am la mënu neex jàmm mag na ma nekkoon jàmm ma gën na ma yàgg jàmm ndaw si ma la mën a doon si moom moo tax mu yàggee fi nii